parce que nag jàpp nañ ne nit ki soo koy soo ko soo ko tàncee xanaa au moins di nga ko bàyyi mu yuuxu donc jàpp nañ ne tey c'est une injustice ñu mel noonu ñu jàpp leen dugal leen ci kaso bi te gouvernement bi na delluwaat ci décision bi mu jël mooy yokk prix électricité bi. Euh, Sénégalais yi de plus en plus fii ak ñuy continuer di wax ak ñoom dinañ gën a conscientiser wu dinañ gën a xam exactement euh, lan la ñuy xaar ci ñoom mooy ñu génn massivement saa yu ñu leen woowee parce que jàpp nañ ne lii askan bi la laal képp koo xamante ne dëkk nga ci kër gis sa facture euh, yokku. daf def loolu yokk boobu dafay fekk déjà leneen ak leneen la leneen lu yokk dafay fekk liggéey bu amul dafay fekk père de famille yu sonn dafay fekk ay ñu retraité ñoo xam ne ne mënuñu yor seen bopp donc loolu yëpp nga bëgg ko boole teg ko ci famille yi je pense que famille yi yëg nañ ko te famille yi génn nañu